وقع البكاء على سادات الأموات أبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقع البكاء على rahmatullah man la Moustapha Diakhaté doon taxaw centre bi pour mu am fii ci dëkk bu sell bi ñuy ziyaare waa Muxaddamatul Xidma yi ci njiital sëñ Abdou Lahad Bousso di nuyu sëñ Jili ak sëñ Fallou Mbacké di nuyu délégation bi àndal yëpp di nuyu docteur Samba Niang mi nga xam ne moom lañ fekk si fii ci centre bi di jël nuyoo beeg siyaar bi di leen ko jox ngeen jotal ñu ko ci kilifa dëkk bi muy Serigne Mountakha di ko ziar bu baax di ko ndokkeel waaye di ko jaajëfal euh, lii nii bu ngeen gisee mu am ci dëkk bi mooy dëkk bi bu yàgg la ko waroon am waaye mi ngi door a jot ci ak ayam moom ak ci jàppaleem ndax biñ gisee ni maladie bi bari na ci dëkk bi te ñi ñi ciy loru bari te amuñu benn pexe dañoo yuuxu ngir ñu amal barab bu mel nii moom mu jàppale ñu ci ñu fàggu lépp fàggu tere wax nañ ko waxati ko ba tàmbali liggéey bi moom moo ci njëkk a dugal aw ñaxam liggéey bi dem ba àgg àgg na nag waaye des na dafa laaj ñu gunge ko euh, gunge bi mooy dañoo bëgg ñu am ay fajkat yu mat yoo xam ne centre bépp dana mën a dox gunge bi mooy dañoo bëgg ñu am ay garab yu mat yoo xam ne day jóge ci état ak keneen ku ci mën a jàpp gunge bi mooy dañoo bëgg forage bi nekk ci biir hôpital bi ñu defar ko ba ndox mu doy man fee am ndax ku wax jëli su wax ndox ginnaaw buñ jaajëfalee waa Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne lépp lu sëriñ bi am ci dëkk bi seen yoon a nga sax te lépp luñ demit lu cay yokk rek la ñuy def ñu leen di sant di ñaan tànk yi ngeen fi ñëwee ak yi ngeen delloo rek yàlla binda leen si tuyaaba fii nag ñun liñ ci bëggoon 80 pour cent am nañ ko mooy nit ñi am fuñ fajoo dootuñu dem ci privé ya dootuñu dem ba dakaar ndax privé dakaar rek la am léegi nag liñ nu mën a dimbalee junj naa ko docteur bi tamit kàddoom dana am solo ci mu sensibiliser askan wi ngir ñu moytu faj mi ñu moytu ko dina leen teg ci yoon boo xam ne buñ ca jaaree ñu bari mën nañ fee bañ a am soxla su ko defee sëñ euh, Jili Ñang wala sëñ Abdoulahat Bousso lépp loo xam ne mën ngeen ñu koo gungee ci barab bi nit mënta liggéey Tuubaa loo xam ne waa mu Muxaddamatul ma bokk ci di leen jaajëfal di leen dénkaat suñu bopp di leen bàyyiloo xel li nga xam ne mooy njariñul askan wi sañ jiili question boobu am na solo ndax malade yi dañ doon ñëw ci man di jàmbat barab bañ nekkoon nekkuwaay ba dafa dëppoowut ak li leen gënal manqué woon na sécurité rafetul woon amul woon ay climatiseur lañ fa doon jàmbat bëri seeni fajit seeni garab munuñu ko woon a jëndal seen bopp léegi nag man ñooñu nga xam ne ñoo doon faju foofu comme sept machine la woon malade yi mënta bari ba ëpp 28 liste bi demoon na ba 300 léegi nag vingt-huit yooyu doon nañ leen jàppale ñun ca barab ba defaral leen ko comme nii wutal leen fa ay télévision wutal leen ay climatiseur tout sa loolu lañ soxla ñoom fexe woon nañ tam ba directeur ba fa nekkoon seenum paj analyse yi ñu dindi ko ba soixante-quinze pour cent yi dootuñu ko fay loolu mooy wéy ba léegi bépp malade jëlise bu faju tuuba sa analyse ñu dindi soixante-quinze pour cent yi na nga xam ne ca loola la départ ñun ñoo ko sàkk ci kooka mooy wéy ba léegi léegi nag ñoom bi ñu amee satisfaction ba pare léegi ñi ne ci liste bi lan mooy seen seen saafara mooy ma jéem a wut barab bu mel nii pour ñoomit ñu am li ñoo ñu am loolu moo ma poussé woon bi ma poussé tam barab lañ doon wër boobu sëñ baara mati lay am na barab bu ma doon jox daaru tansil dafa sori sëñ Modou Lo ngaa bu waxoon na sëñ bi ñu jox ñu barab bi nekk ci wetu police bi dafa sori dañ doon wut fu jege biñ gisee terrain bii nag dem wax ak boroom pour mu jaay ñu ko muy may sa ture ñu di ko gërëm ci seen kanam xam ngeen ko nam mel ci jumaa ja ci la jël terrain bi ni ma damaa am kum kum dal te li ma ciy daj xam nañ ko ñu ànd akub délégation boobu docteur Diouf ci la woon ma may Gay juuf ak Alaaji Njaay ñu di ko ci jaajëfal ak docteur Dahaba mu ne terrain bi def naa ko addi Serigne Touba terrain boobu nag moom mi ngi ko jëndee woon dix-huit millions yor ko juróom benn at door ñu ko joxaat biñ ci jotee nag ci lañ walanteeru tàmbali liggéey bi am na kilifa yuñ ci dab ku mel ne sëñ Abdou Samad indi na fi trente tonnes ciment ku mel ne sëñ Muntaxa moo njëkk a joxe ñu continuer liggéey bi nag ba waa Carrefour médical ñëw ni ma dañoo bëgg a liggéeyal sëriñ Touba te liggéey bii xam nañ ne ku ci def dara mu àgg ca loxo sëriñ bi ma nangul leen ko ginnaaw bu ma àndee ak ñoom dem ba ca sëriñ bi ñu continuer liggéey bi ba mu toll fii ñoo àggale liggéey bi ñoo ko occupé ñoo def matériel yi ba ci poubelle mbalit yi sax ñoo ko fi indi ak ak matériel di bureau ñooñu tam day baax ñu jaajëfal leen bugguñu woon sax ñoom ku ko wax waaye Saliou mbubb moom moo def loolu ñu di ko ñaanal ndax ku fonk faj la ku ku ku nangoo liggéeyal sëriñ bi la kon bu lii amee nag ñun li ci war mooy ñu doxal ko loolu nag waa dëkk bi am nañ ci responsabilité kilifa yi am na ci responsabilité maire bi nag moo ci ëpp responsabilité waaye dafa mel ni li ko li ko ci war dëgg-dëgg xamu ko léegi nag il fallait ñu waxtaan ak moom mu xam ni dafa war a accompagner médecin yi ñu mat dafa war a accompagner médecin yi ci ay consommables dafa war a jàpp ci ndox mi ndax ndox mi lu ñuy jënd la ndax fi ne forage bi dafa paan te ndox mi bu ñu dee fay pour am luñ jëlise malade bi li muy jël ci ndox dafa bëri loolu il faut ma leeral ko tamit baax na jërë ngeen jëf barkalla. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma bon di jiital nuyoo ci nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ñaan yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér. man la docteur Samba Niang di médecin yàlla def ma jiite barab bi ñu nekk tey di barabu jalis centre de jalis bi ñu tuddee Serigne Abo Mbacké Souhaïbou euh, barab bi nag ñu ngi fi tàmbali di fi defee suñuy activité di fi commencé jalis maanaam ci le 5 janvier bon ñi xamul jalis maanaam jalis mooy. mooy li nga xam ne si ne mooy dimbale nit ñi nga xam ne dañoo am doy dal ba nga xam ne si ne seen réunion yi dafa dem ba lépp yàqu nga xam ne si ne maanaam salte bi nekkoon ci deret jeeg ak ndox mi nekk ci seen yaram ak yooyu yëpp réunion bi di ko waroon a génne du ko defati bu ko defee bu boobaa jalis moom moo fay sës jalis moo ñëw remplacer loolu noonu li roñoo bi waroon def roñoo nag euh, xëy na amuñu ni ñu koy waxee ci wolof amul parce que bu dee ci tubaab ren lañ koy wax am na naan roñoo mais roñoo ba léegi tubaab la donc ba peut-être ñu xaw ko expliquer mooy maanaam dafa mel lu nuroo ko sëp lay nurool boo ko xoolee boo rayee xar sax di nga ko fekk ci ci ci ci ci ginnaaw ci ndunkuruq gi mu séq ñaari ndu mu séq ndunkuruq gi ñaari lay doon ñaar yi yëpp séq ndunkuruq gi roñoo yooyu nag dafa am solo ci nit maanaam comme ni ñu ko waxee léegi moom mooy segg deret ji bu ko defee salte bi ak tour ak ndox mi nu waroon nekk ci yaram bi ëpp ci ndox mi bi ëpp ci yaram bi ndox mi ëpp ci yaram bi moo koy génne bu ko defee nit ki mën a nekk normal am na yeneen nag lu muy lu muy liggéey moom roñoo boobu noonu lu am na ferñeent yoo xam ne da koy togg lu mel ne ferñeent li ñu wax érythropoïétine nga xam ne si ne mooy tax deret deret ji di togg euh, ak li ñu wax ay vitamine D ay calcium bu nga xam ne si ne mooy tax yax yi di dëgër ak yooyu donc roñoo daal lu am solo solo la léegi nag bu ñi nga xam ne dañoo am feebar boobu noonu nag ba dem ba àgg ci nga xam ne si ne jalis rek moo fi sës dañu obligé di ñëw danañ ñëw ci barab bi ñetti yoon par ci semaine bi bu ko defee bu ñëwee ñu def leen ci machine bi machine bi moom moo leen ni mooy remplacer la roñoo ba waroon def segg deret ji indi ndox mi la ca des nag yi nga xam ne ay togg ferñeent yeeg yooyu noonu moom machine bi mënu koo def bu boobaa dañuy def ay am na analyse yu ñu faral di def bu ñu xoolee nag yooyu manqué na am na garab yu ñu leen di bindal yoo xam ne mooy remplacer loolu noonu bu ko defee lu mel ne lu ñuy wax bu ñu deret am na benn piqûre bu ñu leen piqûre li ñu wax EPO érythropoétine nga xam ne moom dafa cher lool ci ñoom am na nga xam ne dafa am ñaari façon benn bi mi ngi jar 9000 ñu ci bari dañ ko war di jël semaine bi dañ koy jël ñaari yoon wala benn yoon beneen bi ci des mi nga xam ne mi ngi jar 27500 francs nga xam ne mooy bi gën a baax bi boobu ba te am na ñoo xam ne si danañ ko jël une semaine bi danañ ko jël benn yoon wala fukki fan ak juróom yu nekk ñu koy jël donc feebaru jalis doo nekk na lu diis ñi nga xam ne dañuy ñëw di jëli si tamit ñu ci bari daanaka seenu wér-gu-yaram du demeeti noonu nga xam ne dañuy bu ñuy ñëw hôpital taxi rek la ñuy mën a jël donc maanaam pour wax rek seeraayu seeraayu lool daanaka hôpital la ñuy dëkk parce que ñett yoon ci ku koy ñëw ci semaine bi loolu day yéeme na te ginnaaw ñoo ñi nga xam ne si ne dañuy ñëw tamit nga xam ne dañoo am place nga xam ne dañ leen jël am na ci ñoo xam ne si ne amuñu place ndax tamit centre de dialyse boo gis day am fu mu mën a yem lim bu mu mën a yem ci ay malade te malade yi tamit day yokku nag parce ni mu yokkoo ci Touba gi dañu yéem nañu lool daanaka mënuñoo toog benn bis te gis ñu malaat bu bees boo xam ne si ne am na feebaru roñoo doy dal roñoo te lu ci gën a bari daanaka buy ñëw jalis rek moom moo fay sës maanaam buy ñëw day sonn lool da ngay malade boo xam ne day crise di ñëw wala muy nelaw moo moom loolu moom doy na waar te bu fekkoon na nag teel naa ñëw xëy na du euh, du àgg foofu donc lu ci am solo moo tax ñu bëggoon nag di profité waale rek di ñaax suñu mbokki dëkkandoo yi mm-hmm. waa di leen wax ne foobar feebaru roñoo nit mën na koo mën na cee mucc mën na cee mucc même ku ko am ba noppi sax boo xam ne si ne teel koo xam ne teel ngaa ñëw ci ñun ñun am nañu ay pexe dinañ defal ay garab yoo xam ne si ne nga koy jël faj faj bi taxu koo metti loo garab yooyu ñu naan ak yooyu la ba doo àgg ci gaaw doo àgg ci jalis donc li gën a am solo daal mooy nit dafa war di dem hôpital même koo xam ne si ne dara dara jotu la mm. ngaa def au moins at bu nekk nga dem hôpital ñu xoolal la defal la benn bilan bilan boobu noonu li ci gën a am solo bokk na ci ñuy xoolaal ñuy saytuwaale roño yi bu ñu saytoo roño yi bu ko defee bu ñu gisee ne kat mi ngi tàmbali ñu teel laa yebal ci néphrologue yi comme ñun bu ko defee bu boobaa dinañ la toppatoo li ci li ci waree waaye nag euh, loolu la moo fi xaw a sooxe tuuti maanaam teel a ñëw boobu noonu donc ñu leen ñaax ñuy teel a ñëw barab bi nag dafa nekk barab bu am solo parce que barab bi mën naa ne fi mu toll nii xëy na ba Sénégal mën nañ ne moo fi centre bi dialyse bi fi gën a mag bu ma juumul ndax machine am nañ fi normalement 32 machines 32 machines yoo xam ne mën nañ jël ay malaat donc ñun suñu capacité boo xoolee ëpp na ay 100 nangam ay 120 nangam malaat yoo xam ne mën nañ leen a jël en charge loolu yaakaar naa bareegul ci Sénégal ñun nag vraiment dañ ciy am kontante tey ndax dañ cee dañ kontaan dañ ciy kontaan ñaari yoon ñun yàlla dafa def ñu dëkk tuubaa gii. donc lépp ku lépp lu ñu def Touba loo xam ne si ne ay xéewal la wala kii ñun ci ci ci lañ bokk ci ñun lañ ko fi defal yàlla defaat encore ñu amaat beneen casquette maanaam ñu yàlla defaat ñu tey ñu sol mbaxanam nekk ki nga ne moo jiite bi donc ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci kontaan bu baax a baax di jaajëfal nag sëñ Moustapha Diakhaté bii nga xam ne moom moo jiite woon taxaw moo jiite woon liggéey bi moo ko taxaw ba mu agsi fii nii tey ak ñi nga xam ne si ne maanaam jërul ma ciy jaaraat ñi waxoon na ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci def seen ñàq ñoom ñëpp di leen ci gërëm leen ci jaajëfal te di woo nag tamit ñeneen ñi ci des ñëpp waa dëkk bi mairie beeg ak bonne volonté yeeg suñ kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg ñëpp ñu ñëw ñoom it parce que liggéey bi kat àgg du àgg du mas a àgg ndax euh, comme ni ñu ko waxee léegi euh, jalis bi du day day fees te dañoo war a yokk tamit fi mu toll nii euh, yi bari nañ waaye jël jariñoogul machines yëpp jariñoogul machines yëpp waaw des na ay machines yoo xam ne si ne utiliser gun leen ndax li ko waral mooy nit ñi fii liggéeyee xaw naa sooxe tuuti non di ci profité di gërëm suñu directeur euh, docteur Makhtar Lo vraiment def na ci ay effort donc yokkal nañu personnel bi tuuti waaye ba léegi taxagul mu doy comme dañoo yor 32 machines bëgg yëpp dox personnel bi war naa yokk bu baax a baax a baax beneen bi ci des tamit mooy dañuy am dañu xaw am jafe-jafe ndox maanaam ndox mi xam nga jalis booy xool ndox la lépp ndox la ndox mi nag day xaw a manqué Touba moom daa baaxoo daa quartier yu bari dañu xaw di baaxoo manqué ndox fii xëy na ci la ci loolu la bokk moo tax dañuy am jafe-jafe ndox yooyu noonu bëgg nañ ñu ci dimbale ku ñu ci dimbale bu ko defee ñu mën a doxal nañ war a doxale mën a jël malade yu ki malade yu baree bari ndax bu ko def bu boobaa liste d'attente bi ñi nga xam ne si ni ñu dañoo bindu ci liste bi di xaar bari nañ bari waaye boo xam ne si ne jéggi na dayo bu fekkee ne nag fexe nañ ba centre bi lépp machine yëpp di dox ñu mën a jël li ñu war a jël ci li ñu war a jël ba fees bu boobaa yaakaar naa liste bi li ciy desati du bari donc loolu lu lu am solo la ndax ñi nga xam ne si ne amuñu place ci liste bi ñoo ñu ñu ci baree bari dañuy faatu ndax amuñu xaalis bi ñu defee jalis ndax jalis kat boo demee ci privé bi di ko def waaw fi mu toll nii daanaka Dakar la ñuy la ñu yebal wala Kaolack wala Mbuur dakaar sax lu ci bari léegi du am place ndax centre bu mag ba fa nekkoon xawoon naa am jafe-jafe donc ñu bari duñu am place te heure boo demee def jalis di nga fay 65000 francs ñu ci bari ñett yoon lañ ko war a def ci semaine bi am na ñoo xam ne si ne peut-être ñaari yoon dina leen dina leen dina leen soulager tuuti mais ñu ci bari ñett yoon lañ koy def donc kon loolu metti na kon feebar bi lu jara lu jara jara moytu la lu jara moytu la léegi nag bon feebaru roñoo pour mucc ci daanaka jafe na jafewul li ci ëpp mooy li ci gën a am solo mooy xeex ba fexe lu li lépp loo xam ne si da lay indil yaram wu bari ak tension wala ay jabet te loolu lu ci bari bari ci lekk yi xeetu lekk yeeg yooyu lay lay lay demee waaw maanaam dañuy wax ne nit dafa war di yëngal yaramam fu mu toll def sport maanaam même bu fekkee ne da ngay doxantu sax bis bu set nga jël heure boo xam ne si ne kat da nga dox doxantu yu xaw a jéego yu xaw a dëgër tuuti def ko ay lu mat ay fanweeri minute dina bokk na ci aara ci yi ñu wax noonu beneen bi mooy nit ki daa war di naan ndox boo mareeg boo marut journée bi war nga cee naan gën gaa tuuti litre ak xaaj wala ñaari litre loolu bokk na ci ñi dimbale eh, ci feebar bi beneen bi ci des mooy lekk bi maanaam nga xam ne si ne ñun fii ci Touba seetlu nañ ne li ñuy lekk maanaam day saf xorom lool xorom bi dañ ko war di wàññi bu baax a baax lekk bi waru di saf xorom waru du niin bu baax trop nii bu baax bi baaxu ci kër su bari si aussi dañ ko war di wàññi dañ ko war di wàññi bu baax a baax a baax ñi nga xam ne si ne nag dañoo am tension ak jabet ndax buñ xoolee fi mu toll nii daanaka malade yi li ñuy bari bari ñuy def jalis boo leen saytoo ñu ci baree bari tension moo leen ko jox wala jabet donc ñëw ñooñu nga xam dañoo am tension ak jabet ñoo ñoo war a njëkk hôpital di faju di di respecter seen i rendez-vous parce que am na médecin yu leen di suivre parfois médecin généraliste yi la ñu doon mais ñooñu dañ buñ defee liñ buñ buñ respecté seen rendez-vous médecin yooyu di leen toppatoo ni war a li leen war a toppatoo mën nañoo bañ a ñëw ci ci ci dialyse bi nii ñooñu tamit ñu ci bari nag dañoo seetlu ne seen i garab parfois duñ ko du mat na mu war a mateel am na ci ñoo xam ne si ne xëy na dañuy ñàkk ay moyen boo leen bindee parce que daanaka ordonnance boo xam ne si ne benn garab yoo xam ne si ne daanaka weer bu nekk da koy jënd daanaka dépense la am na ñoo xam ne ñëpp amuñu moyens yi donc boro na ci bokk na ci li li li tax feebar roño bi di gën a bari parce que ku am tension dem jëloo sa garab tension bi di gën a yéeg di yéeg rek dana dem ba yàq roño yi masa ak ki nga xam ne si ne aussi dafa am jabet diabète même chose bu jëlu traitement am donc ñooñu moom dañ leen di gën a ñaax ñu góor góorgóorlu faj bi xëy na cher na mais bu buñ xamoon ne li ci jalis yaakaar naa dund waaw dinañ ko moytu danañ danañ xam ne foofu loolu xëy na sax seerut ndax garab yi ñu leen di bindal garab bu tension daanaka lu ci bari boo ko jëlee dina la couvrir ci weer bi yëpp donk euh, jël garab bi yaakaar naa moo ëpp solo fuuf ba ndax jalis bi jalis bi moom doy na waar jalis bi waxuma la diisaay waxuma la seeraay beeg yooyu rek waaye diis dafa diis daanaka malade yi def jalis ñu ci bëree bari seen i wér-gu-yaram day xaw a sooxe dañu am problème yu yax ak yu mel noonu donc lu lu jaram lu jaram moytu la. bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko. Eh, sëriñ Moustapha ji ngi lay nuyu di nuyu docteur ak mboolem personnel bi nga xam ne ñoo fi nekk eh, am nañ mbégte bu baax a baax ñëw teew fii ci centre jalees bi nga xam ne mi ngi fii ci eh, Madiana ñu tuddee ko sëriñ Chouaïbou Abou Madiana Chouaïbou teew fi teewal fi daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ bu Buso mu tànn kilifa yi nga xam ne ñoom ñëpp ay responsable lañ ci daayira bi sëñ Abdou Lahad Bousso Maam Asta mi moo jiite commission sociale et relations extérieures te commission santé ci la bokk xam nga ne euh, boo demee fee ci jumaa ji am na benn centre fajukaay bu fa nekk euh, am na tamit am nañ tamit ay relation ak docteur yi bu am solo boo xam ne daayira bi am na ko sëñ Abdou Khadir Niang moom mii bokk ci commission sociale euh, ak commission bi sëñ ab laxaat jiite sëñ fallu Mbacke moo jiite commission organisation mboolem ñiy liggéey ci sëñ Abdou Khadir ak suñ euh, Cheikh Diop nekk ci commission euh, communication man maa jiite commission culture et éducation ñu teew fi nag euh, am ci mbégte lool ndax liggéey bu rafet bii nga xam ne sëñ Moustapha yàgg na koy wax sëñ Abdou Khadir mu di ko jot li daayira Moukhaddamatoul Khidma xëy na yàlla dogal tey la yàlla dogal ñu ñëw ngir def visite waaye bi ñu fi ñëwee day gis nañ fi lu kawe suñ jort ngir taxawaay bu am solo bi nga xam ne agsi na fii ci ay jéego yoo xam ne ca ba mi doon ba ba kër amagut ba ba nii mu agsi liñ fi gis tamit wax dëgg yàlla bett nañu lool te umpoon nañu lool te loolu jàpp naa ne bari nañ ci ay moroom ndax feebar boo xam ne euh, jafe naa faj te ñi koy xaar bari nañ te faj mi seer na su fekkee yàlla dogal na ay mbokki taalibe te sëriñ bi jiitu ci ñu def fi lu mel nii ngir fas yéenee dimbale taalibe yi fas yéenee dimbale jullit yi loolu lu am solo la kon li ngeen wax sëñ Moustapha wax ko docteur wax ko dégg nañ ko duñ ci duñ ci dellu si maanaam li ci am solo rek mooy te ñun ñu seere ko man koo man koo wax mooy lancer appel ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yi rawatina taalibe yi Sëñ waaye ñi ci jiitu nag mooy ñu dëkk ci dëkk bi ma bëri na ay ay ay boroomi man-man yoo xam ne jàpp naa ne kuy liggéeyal yàlla walla nga bëgg ngërëmul yàlla wala ma nga bëgg def loo xam ne ëllëg dana la mën a e, jariñ ca barsàq jariñ la ëllëg jëfi fii jëf fii lu ci lu ci gën a gaaw gisuma ko li Sëñ Tuubaa dañuy wax ci masaalikul jinaan wa arxabul asyaa lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwayxatan faqat li yacmalu saalihatan tanfahum in qafalu ñi faatu liñ gën a bëgg mooy del si àddina donte dañuy jëf dara lu tuuti loo xam ne bu ñu demee ëllëg dana leen fa jariñ waaye nag jëf loo xam ne tey dafay des di la jariñ ci lu mel nii lañ ko mën a lañ ko mën a lañ ko mën a def maanaam jëf ci loo xam ne dafay faj nit ki ci lu mel nii lañ ko mën a defee te tiyaaba yi ëpp nag yi suñu borom digee ëllëg taxawu doomu aadama taxawu jullit bi da ci am solo ndax sëriñ Fallou daana wax ne dee leen jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax mooy li nga xam ne mën nga cee am sa ngërëmul borom ci lu gaaw muy muy xettali jullit bu bu bu mat xettali kon daayira Muxaddamatul Xidma daf koy tàmbulee ci boppam mi ngi ci soññ boppam di ci soññ mboolem silil yi ak membre daayira Moukhaddamatoul Khidma moo xam yu nekk ci biir ak ñu nekk ci bitim réew ak ñi nga xam ne fu ñu gisee lu baax danañ ci jëf ñu ngi leen di woo ñu jëf ci fii ndax loolu wax dëgg yàlla gisuñ lu ko gën a lu ko gën a kawe incha allahu rabbi tamit nii ñu ñëwee ànd ko ak yéen noonu lañ koy fas yéenee ànde ndax sagam xam nañ ko tey fas nañ yéene wala luñ man ci suñ kàttan ak ci suñ man-man ak ci suñu xalaat danañ ko fas yéene di ànd ak yéen ngir euh, liggéey bi gën a jëm ci kanam ndax mbir la moo xam ne euh, mënees na cee dàkk ngërëmul sëriñ Touba ndax sëriñ bi kat dëkk bii bi mu koy sanc jaamu yàlla moo taxoon ak xettali mbindeef yi ngir ñu jariñu ci seen àddina jariñu ci seen ëllëg kon nit ki su fekkee ne wéradina am ñu ko mën a taxaw ba mu de dolli dellu see kattanam ba mën a jaamu yàlla mën a liggéeyal sëriñ loola day dellu ci yi sëriñ bi ñaanoon ci ku nekk ci dëkk bi te mel noona mu yow man faxan li kulli haadin muslimi wa mad faxan xan kulli haadin mujrimi day dellu ci tamit lim dige woon ci ku tabax jumaa ji day dellu ci lépp lu baax loo xam ne nit def na ko fi ci lu baax day dellu ci ñaan googu kon mbir la moo xam ne de euh, jéggi na dayoo foo takk am gi solo weesu na ko sëñ Moustapha nag yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaay bi ndax xam nañ say taxawaay yu jiitu yoo xam ne démb la woon ak tey yàgg na ci yàlla na yàlla kàttanal te baril say kem ndax lii tamit euh, gis-gis bu kawe la maanaam niwu bu kawe la ndax nit mën naa nekk ci ab dëkk di commerce wala mu doon ouvrier wala mu doon am na ñu bëri ñoo xam ne ci dëkk bi daanaka dañ fee nekk rek ngir wut koom waaye duñ bàyyee xel lii avancé dëkk bi bëri na fi ñoo xam ne ñëw nañu fii ci dëkk bi ba doon ay millionnaire wala ay milliardaire te amuñ soxla ci luy avancé dëkk bi loolu nag gis-gis bu kawe la kon su fekkee ne am na ñu mel ni yéen ak ñoo xam ne ñu ngi leen ciy roy ci ci xam ne mën nañ fee wute fi lañ bokk dëkk fi man fee jariñu ci seen bopp euh, man man a gis-gis bi kawe daal dafa yëmut ci nit ki am lu mu dunde ak njabootam rek maanaam nit ki dafa war a fexe ba marqué jamonoom ci ak waxambaaneem ci def loo xam ne du yem ci boppam xam nga nit ki moom loolu du ngóora fexe ba liggéey ba tabax sa kër am oto ak yu demee noonu ci mu yem ci sa bopp rek ak sa njaboot pour man loolu du ngóora da nga war di participer ci loo xam ne dafay jariñ nit ñi loolu dëgg-dëgg mooy ngóora kon nag lii lu am am solo la maanaam tey loolu mooy ma te sëriñ bi tamit nag wax dëgg yàlla foofu la loolu la ko sunu borom fayee ci ay taalibeem kon nag ku doon dëgg-dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg mooy xidma xidma nag dañ koo tuddee ci ñett mooy nga liggéeyal nit ñi ngir yàlla te doo séntu payu léegi léegi payu yàlla rek nga ci séntu te lii lu ko ci gën gisuma ko àndale luy lore sax ci yoon dañ koy tudde xidma jàppale nit ki mu yéegal bagaas dañ ko waaye taxawu nit ki mu faju ba mën a dellu ci sagoom mën a jaamu yàlla loolu moom lu ko gën a kawee ci xidma gisuma ko kon daal ñun ñu ngi ciy am mbégte bu baax a baax a baax di ci sant bu baax a baax di ci gërëm di ci ñaan ci darajay sëriñ bi ak ci darajay barab bee ñu jóge képp koo xam ne ñëw na fi sunu borom def nga faju fi nga wér te sunu borom yokk kàttan gi ba mu doon ay étage ba Sénégal gépp fu waay soxlaa lu mel ni ñëw Touba di ko fi wut si te loolu mën naa am waaw ni nga wax léegi docteur li nga wax ne centre bi mooy bi gën a kii jàpp naa ne taalibe yi bu ñu ko yëgee dëgg dëgg dëgg surtout waa bitim réew ndax ñoom xam nañ foofa léeg-léeg bi ñu ko yër nga gis da ngay demee Italie wala fenn man ñama gis ñuy bindu duñ bindu ci pour def jalis bindu pour am rayon rayon la ñuy bindoo waaye ñoom weesu nañ foofu moom dépassé nañ foofu maanaam bëgg a def jalis moo machine boo ko defee loolu dépassé nañ ko te fii nag Sëñ Tuubaa am na lépp te mën na fee am kon jàpp naa ne dafa war a weesu ci dëkk bi nit bëgg a def jalis di ko defee ci Dakar wala fenn waaw loolu moom te loolu bu ñu ci taxawee mën naa am ci lu gaaw gaaw kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ñaan sunu borom mu defal ñu taw tawféex lu am solo tamit loo xam ne bëggoon naa ko ci dolli muy lu mel nii ñi koy def jàpp naa ne état lañ koy defal kon nag ñi ngi ci soññu état bi muy ñi nga xam ne ñoom la état dénk sante tàmbalee ci ñoom ni nga ko waxee léegi da nga directeur hôpital bi jàpp na ci indi fi ay matériel kon loolu lu am solo la kon li tàmbalee ci moom ba ci ministère ba ci président de la république wax dëgg yàlla su fekkee ne am na loo xam ne sa waru gar la am ñu la ciy taxawal jàpp naa ne jàppale leen ci mu gën a am solo loolu warteefu président de la république kon ñu ngi ko ci soññ bu baax a baax ndax sëriñ bi moom muy fii sëriñ bi Seex Muhammadul Muntaxa daanaka li muy doxe mooy du xaar état ci dara leen lu moo ciy jiital loxoom gis ngeen ko ca mbënd ya gis ngeen ko ca corona ba gis ko ci ëmad yi amoon kon li tax lii mu jël xaalisam jiital ci kon ab soññe la ci état état nag buñ koy wax Euh, président ci la bokk waaye commune commune Touba muy maire Abdou Lahad Ka ñi ngi koy soññ ci mu gën a yokk ay taxawaayam ci barab bi ndax loolu tamit jàpp naa ne ci ay waru garam la bokk ndax commune wala maire ñoom ñooy taxaw seen population ci seen wér-gu-yaram centre de santé yi ngay gis ci dëkk yëpp lu ci bëri daanaka communes yi ñoo koy piloté kon loolu lu lu mat a bàyyi xel la gën leen a taxaw gën leen a bàyyi xel ci seen taxawaay ni ki noonu ni ko Serigne Moustapha waxe léegi jàpp naa ne forage kenn nit ku am dara mën na ko financé kon jàpp naa ne am na borom alal yoo xam ne suñ déggee ne fii kat li koy gën a doxal ndox ci la bokk ku am man-manu mën a ñëw sampal leen forage boo xam ne ñoo koy moomal seen bopp loolu dama yaakaar ne dafay dafay ja su fekkee ne loolu amul tamit kon warugar la ci état mu xam ne fii war naa am forage su boppam boo xam ne du manqué ndox mukk bu ñuy tubaari jàmbal ba waaye malade moom dañoo war a faju du manqué ndox mukk loolu tamit ñu ngi ciy soññ état bi baax a baax di ci sonn ba wala ñu ngi yemale kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi tudd Moustapha Guèye bokk ci ñuy jëlis fii ci centre bi di centre Serigne bu Mbacké bokk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni may jël ay kàddu rek di ko yëkkati ci turu malade yëpp di leen wax ne ñii fi ñëw tey di ay gan bàyyi ko ci dëkk bi di waa Muxaddamatul Xidma ànd ak Serigne Moustapha Diakhaté mi nga xaay bi mooy président Jalise yi ma topp ci moom ah, ñoom lañ leen di présenté ah, fekk si fi docteur ah, Samba ak personnel bi mu àndal ñuy sant bu baax ci ñëw bi nga ñëw seet suñu ndax am nañ ci mbégte lool wax dëgg yàlla ndax su ngeen ñëwee ci barab bi fekk suñu fi ñaanal ñu loolu dana sedd suñu xol loolu am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax ku ne xam na ne Muxaddamatul Xidma moom ci ndigalu sëriñ bi rek la ñu nekk kon tey jii bu ñu ñëwee fii fekk suñu fi loolu suñu xol sedd na ci bu baax a baax a baax mu mel ne ñëw ngeen ci barab bu am solo pour ñëw fi tey jii ndax euh, dañ doon jël ci centre bu xaw a xat waaye nag yàlla def na tey ñu daloo barab bii ah, bi ñu koy sàkku nag di ko wut ñu ngi ko doon ànd ak président Moustapha Diakhaté mi ak directeur hôpital bi ak docteur yi fi nekkoon ah, ba tey ñu am ko ci ndigalu sëriñ bi sëriñ bi nag bi nga xam ne bi commencé nañ ko defar fii joxe na ci ñaan joxe na ci tamit alal ju baree bari pour mu taxaw loola nag doon njëriñ looxaay bi ñun gis nañ ko bu baax a baax ndax ñun yàlla dogaloon na amoon nañ fi place ba pare kon daanaka ñun santoon nañ bu yàgg waaye nag ñu gis ne xatoon na ndax dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam bi am réew lañ ko mën a jàppee boo xoolee dakaar gi ñu koy tëkkaleel am na ay centre yu baree baree baree bëri Touba amoon ci benn centre bi rek mu doon dox ba yàlla dogal ñu amaatoon benn ca ndaamaatu waaye taxagul woon mu doy ndax Touba dafa nekk dëkk boo xaay bi ñi fi nekk bari na te feebar bi law na yaatu na loolu nag tax na ñu fexe woon am centre bii centre bi doyut sax ba tey waaye nag mënees na cee jàppandi te xam nañ ne la indi lii dana indi leneen ndax fanweeri machine ak ñaar wala juróom yaakaar naa bu ñu ko amee ci jóge ci juróom-ñaari machine yokkute la loolu ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax nit nag bu ñaanee yàlla mu may ko da koy sant xaj na am na yu des waaye lu des mit ñu ngi koy ñaan lépp bu gën a dollikuwaat sëriñ bi wax léegi wax na ko ndax ñëpp dañ cee war a jàpp ku mel ne maire war na cee jàpp comme sëriñ bi bi mu ci jàppee dafa wax ne joxe na ndigal ñëpp def seen loxo kon ñëpp war dañ def seen loxo ndax feebaru jalis feebar bu metti la bu yaatu la ni ko Serigne Moustapha Diakhaté mi xamee ba tax mu dem ca Serigne ba wax ko ne ab centre kër jaadu na pour ñu defar ko fi jàpp ca ba mu ba mu yegg si fi mu yegg si loolu war na ku ne xaj na moom la yàlla def am xelam daj loolu waaye bu wootee tamit ñëpp war nañ ko wuy si yaakaar naa ne tuubaa rek waruñu fee mën a faju dafa war a nekk barab boo xam ne bii képp ko am tawat ji ci Sénégal sa xel war naa daj ci Touba te waa Touba mën nañ loolu ñu ngi ci centre bi yaatu na kaw gi leneen ak mën na fee dem. su ko defee rek dinañu am ni ñu ko bëggee ñun ñi mu dal xam nañ ne yombut ndax su lay sotti dal nga dem ci privé yi yaa ngi fay fukki junne ñett ci séance bu nekk séance bi yaa ngi ko war a def ñett yoon ci semaine bi war nga def dialyse bu ne nga fay soixante-cinq loolu ñëpp munu ko kon bu ñu defee lii ñun sant nañ ci bu baax a baax ñun malade yi ndax bëggatuñoo gis ko feebar ñun moom xalaatuñ suñu bopp ñun feebar nañ ba pare ñun moom bu ñuy yërëm askan ñun ñoo war a yërëm askan ñun ndax ñun ñi xam li ñu li ñu li ñu dal ñun feebar nañ ba pare waaye yàlla def na am na fuñ fajo waaye ki xamul feebar bi te xamu ko kooku mënut a fegu il faut nga xam feebar bi soog a fegu kon waroon nañoo koo mën a xamal nit ñi njëkk sensibiliser leen loolu docteur bi def na ko barki dem fecc hôpital jéemul di sensibiliser nit ñi pour ñu xam ne feebaru jalis lu am la ndax dañoo wax ne tabax rek doyut war nañoo tabax ngir comme dal nga mën taa dugg waaye war nañoo sensibiliser nit ñi pour bu mu leen dal loolu war nañ ko xam bu baax a baax a baax xam naa ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di rafetlu seenu ñëw fii lu ngeen ñu ñaanal rek gis nañ ko ñu ngi leen sant bu baax a baax xam nañ ne bu ngeen ñaanalee dinañ ko dina ñëw ndax yéen sëriñ bi rek ngeen di liggéeyal sëriñ bi rek a li ñor asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh